le secteur de l'agriculture et ni mu yaatoo évidemment euh, xam ngeen ne mën nañ ci euh, def ay waxtu waxtu d'ailleurs dinañ ci ñëw euh, gën ko yeggal li ñu laal tuuti ci secteur u njàng meeg njàngam njàngale mi ak El Hadj Malick Youm élage lu Hadj le mouvement national des enseignants fan la toll lan ngeen su mën a wax waaw bon merci beaucoup euh, je pense que quand bu ñuy wax ci éducation dañuy fàttaliku rek comme ni ma koy waxee chaque fois dama ko tàmm d'ailleurs damay wax ne mooy cëslaay réew mi. Ah et donc euh, tey bu ñu xoolee depuis quelque temps peut-être mën nañu wax ne question yi nga xam ne tey ñoo ëpp solo ci secteur éducation <laughs> bi ci njiitu bokk na tey ci secteur bi li nga xam ne moom la autorité yu bees yi jël muy ne dañu ne dañuy def benn politique de recensement des personnels de l'éducation loolu tamit ñun suñu syndicat joxe woon na ci point de vue am mm-hmm. wax nañ ne alors ñun d'accord nañ ci politique de recensement boobu mais dañu am ay remarques tamit yu ñu formuler woon parce que dañu wax ne soo xoolee tey euh, autorités yu bees yi bi ñu ñëwee gis nañ ne secteur éducation mu ngi fi ak yeneen secteur mm-hmm. donc bu dee dañu bëgg transparence évidemment il faut ñu xam tey euh, njariñ bi euh, audit boobu nar a am du personnel mooy dinañu permettre ñu xam ndax masse salariale bi correspondre na ak tey li nga xam ne moom la ñu annoncé toujours par rapport au personnel. Mm. su amee manquement ñu corriger ko. beneen avantage aussi mooy dina gën a tax tamit ñu respecter li ñuy wax le principe de transparence maanaam lépp lu ñuy def ci secteur éducation mu doon lu leer parce que ñun suñu syndicat même dafa bind ne lépp lu di secteur éducation dafa war a doon quand loo xam ne transparence moo fay am ak di reddition des comptes maanaam di rendre compte ci lépp lu ñuy def mais ñu boole ci weneen élément bu am solo muy que tey soo xoolee tamit personnelu fonction publique du secteur éducation kese. Oui. donc dañu war a def benn audit général boo xam ne personnel yi nekk ci yeneen ministère yépp aussi. Mhm. ñu xool quand ñan la. ni ñu leen recruter et tout ça ñan ñooy effectifs yi. Mhm. pour que ñu gën a mën a am une maîtrise de la masse salariale ak des effectifs. Mhm. donc loolu moom lu ñu formuler woon la. maintenant la façon de faire l'audit aussi ñu rappeler ne des fois dana indi ay pëccëxoo diggante ministère bi ak li ñuy wax euh, mais les enseignants lu koy indi mooy. tey bu ñu buggee def recensement de personnel. Mhm. mais ñoom am nañ ay moyens par exemple tey au niveau du ministère war nañu joxe. ay instructions yu leer pour que ñi ñuy wax les inspecteurs d'académie mm-hmm. ak ñi ñuy wax les inspecteurs de l'éducation et de la formation mais am benn politique boo xam dañuy déplacer wu vers les écoles mm-hmm. xam nga tey bu dee da nga bëgg a ñaata journalistes ñoo fi am ak ñaata organe de presse mm-hmm. au lieu ngay wax presse bi yëpp tous les journalistes de Dakar fekk leen ma par exemple euh, euh, euh, stade bi nekk fële ci Padois mais amul sens yow da ngay jël ay moyens nga maanaam ces journalistes là. Mm-hmm. alors si seen ay organes de presse yi nga xam ne xam nañ leen officiellement. nga def foofu recensement bi. donc loolu lañ leen wax ne aussi buñ ci juum. parce que dañu mësoon a ñëw. alors di def li ñuy wax audit physique et biométrique en 2012 sous le régime de. Macky Sall dem jël enseignants yi bëgg leen di leen parquet di leen kii di leen dugal ci ay yu nga xam ne nii defar ay euh, par yu ñu leen di dugal yoo ça c'est pas humain. Mm. kenn du ko nangu. actuellement bon recensement bi ñëpp d'accord mm. mais d'abord pour ñun la première étape mooy le recensement numérique parce que ñëpp tey am nañ benn système boo xam ne bii moom la ñu tuddee Mirador enseignants yëpp mën nañ dem foofu def seen ay données maintenant bu dee ne dafa am audit physique aussi que ñu xam ne bu dee yegg nañ ci alors en la moment là il sera question que autorités yi déploient des moyens pour fekki enseignants yi ci seen lieu de travail pour recenser leen parce que loolu mooy li xel mën a nangu alors muy am deuxième point aussi boo xam mm-hmm. toujours c'est par rapport à l'actualité mm-hmm. muy le mouvement nationale mm-hmm. xam nga tey dafa am li ñuy wax le droit à la mobilité professionnelle comme quoi enseignants yi at mu jot su at mi di jeex ñoom dañuy am droit dem candidater si nombre de point yi nga am ak fan nga bëgg a dem pour nga ñaan ne man jàngale naa ah, par exemple Matam fukki at su ma sañoon ma jógee fii ma dem ñu yóbbu ma Thiès ma continuer jàngale loolu ñoom droit la bu ñu am. absolument alors mouvement boobu commencé na mais dafa am aussi benn nouveau système de zonage boo xam ne moom la ministère indi ñuy wax ne donc tey dafa am yenn critères yu bees yoo xam ne moom la ministère bi dugal mais loolu tey ñu ngi koy appliquer mais nag am na ay dysfonctionnements yu ci am parce que da ngay gis fu nga xam ne nii. maanaam zone déshéritée lañ ko tuddee mooy foo xam ne fii pour nga yegg fa du yomb. du dafa am par exemple problème aussi am euh, climat bu nga xam ne nii tey climat bu metti la doon ay localités yu tumuranke ba pare ay jàngalekat kese nekk fa di liggéey mais ñu jël zonage bi foofu bëgg leen jox point yoo xam ne tey buñ ko defee. kon dina wàññi chance ñooñu. pour ñu mën a am sa droit à la mobilité professionnelle ñu ne loolu moom ay manquement la yoo xam ne ñu ngi koy corriger moo tax ñun dañu defoon des fiches de suivi yu nga xam ne bës bu jot dañuy laaj suñu militants yi fépp fi ñu nekk ci Sénégal lan mooy seen ay problème bu ñu ko waxee ñu jël fiche bi bind problème yooyu envoyé ko waa DRH parce que da ngay gis par exemple ci benn localité lycée bi ñu classé ko ci zone 4 points jël par exemple école élémentaire bi def ko zone 3 points wala le contraire te loolu mënul nekk lycée bi ak euh, école élémentaire fi ñu nekk ñoom ñoo war a bokk zonage donc yooyu ñu ngi koy corriger peut-être loolu moom léegi mu jeex mais na nag li ci ëpp solo peut-être bokk na ci tamit ndaje mu ñu amoon le vingt 22 avril bi passé parce voilà. que aujourd'hui ministre bu yees la ñu am euh, dalal na leen yéen waa G7 muy syndicat yu gën a représentatif alors lan moo tukkee woon ci ndaje boobu est boobu léegi ndaje prise de contact rek la wala am na décision ñu fa jël non ndaje bu am am am am solo la parce que quand prise de contact la mais ñun dañ ko def séance de travail parce que aussi comme temps amul su ñu amee opportunité toog ak ki nga xam ne tey ñëpp identifié nañ ne moom la ñu dénk lu ñu jëm ci wàllu éducation bu ñun en tant que syndicat du G7 nga xam ne ñun ñoo am le droit à la représentation wara toogal jàngalekat yi di leen waxal ci autorité yi bi ñu demee ñun dañu jàpp ne occasion de travail la parce que temps amul mm. pour toog waxtaan prise de contact ku nekk dem non ñun dañ ci profiter jël dossiers yi teg ko ci table bi. alors <laughs> du revendication yi parce que nag foofu wax naa si ba tey <laughs> dama ne. Euh. gis nga tey euh. il faut nit ñi comprendre que ne posture ñun suñu syndicat SAEMS nekkul posture revendication actuellement. contexte bu nekk ak li muy àndal. Hmm. tey ñun defoon nañ revendication parce que temps syndicalisme ñetti temps la. Hmm. dafa am li ñuy wax temps revendication. Hmm. alors temps revendication li ciy topp. mooy temps wu négociation boo revendiquer ba tàmbalee xeex da ngay dem ci négociation mais soo paree nag si négociation mais c'est la signature de l'accord hmm. alors boo signé accord ñeenteelu temps bi gën a leer mooy application de l'accord alors fi mu toll nii donc soo xoolee dépassé nañ deux temps yi njëkk mais li ñu toll mooy signé nañ accord mais nguur gi fi génn jëfeewu ko et eh, loolu moom mooy li may rappeler tout temps mais l'état continue mais évidemment moo tax nag très bien moo tax tey xam nga phase bi ñu nekk <laughs> c'est une phase euh. importante boo xam ne ñun en tant que syndicat dañu ñëw toog tëggaat suñu école mm-hmm. loolu moo gën a ëpp solo foofu li ngay euh, maanaam du revendication mais day doon lu raw revendication mm-hmm. école dafa feebar dëgg la école bi ñëpp xam nañ ne tey pàcc boo jël rek du ma dugaat si détail chaque émission ma ñëw si mënuma ko hein mais ñëpp xam nañ ne fépp feebar école foo làmb rek personnel bi problème la nga jël problème environnement scolaire nga jël problème moo tax dañu sérieux ni ñu waxtaanee ak ministre mm-hmm. dañu sérieux suñu ay question mm-hmm. dañu ñëw njëkk a waxtaan ak moom si ñuy wax les questions structurelles question structurelle et question d'orientation de l'éducation maanaam mm-hmm. ëllëgu école bi ak maanaam base école kon tey wax nañ ci wàllu programme yi wax nañ ci wàllu maanaam alam bi mooy environnement scolaire mm. wax nañ aussi ci wàllu même kàllaama yi wax ci poñ yu bëri bi ñu paree si loolu nga xam si orientation école bi ci boppam mm-hmm. ba pare aussi nangu moom proposition bi mu def ne nu ñu jógee ci système éducatif migrer vers ce qu'on appelle la société, société éducative, parce que loolu mooy ëpp maanaam mbooloo mm. te loolu aussi xëy na terme la boo xam ne fekk mais validé parce que en fait pour ñun mm. tey éducation dafa toll si ay concepts internationaux yu nga xam ne mm. ñëpp xam nañ ko mooy nous sommes dans le cadre de la transformation de l'éducation c'est ça alors ñu ñu ñu toftal ci nag maintenant li ñuy wax le passif social mm-hmm. le passif social mooy lépp li nga xam ne nii tey ay déggoo la ñu xaatim te nguur gi indiwu ci solution nguur gi génn ñu ne nguur gi na ci indi solution bokk na ci problème mu décisionnaire yi mhm. bokk ci problème mu tey lenteur administrative yi mhm. bokk ci aussi payoor gi mhm. bokk ci yeneeni poñ yoo nga xam ne yépp tey buñ ko xoolee ministre bi bu ma doon tënk rek décision bi mu jël moom en tout cas ñun noté nañ ko et jàpp nañ ne loolu lañ doon xaar ci moom mooy mu taxaw ne moom dina xar tànku tubéyam ngir ñu régler problème mu passif social bi. Mhm. loolu moom jël na décision boobu wax na ko devant les autorités. Mhm. et alors ñun aussi dañu jàpp ne. Mhm. ñoom tey loolu la ñuy xaar ci ñoom tey. il faut ñu régler problème mu secteur éducatif.